kii bayre a xam na ci Cheikh Arouna. xanaa ma bañ la ko defal. wala nga bañ ma ko jaral man du ma fen. neexuma deret. du ma tooñ aussi wala ku ma tooñ tam yëguma la. yëguma ko maa ngi lay jéggalu. loolu ñëpp xam nañ ko. ku ma munti tooñ rek maa ngi raam di tuub sa wet. di bëgg nga jéggal ma. des nag nit su ma nee waaw dinaa la ko defal rek dinaa la ko defal. waaw am naa bayre am naa bayre boo xam ne bu nekkee jaral na ma yow ma defal la ko su ma la ko defalee ba pare addit bi yëpp dina la xam loolu amul wérante incha allah mooy li ma la wax sànq rek un plus un jarul in bu neexee yàlla incha allah dangay jaar fi nga war a jaar rek sëriñ bu fi jaar fi nga war a jaar boo ñaanee yàlla nangu ku fi jaarul foo war a jaar nag boo ñaanee yàlla nanguwul xoolaatal sa bopp rek loolu kese la loolu kese la. amul leneen yàlla xoolal fi nga war a jaar rek jaaral fi nga war a jaar ci sa intérieur ak sa extérieur ci sa intérieur nga war a defar ba pare nga xool soo ko xool nag li ngay ñaane mais boo ko de jaaralee fi mu war a jaar rek yàlla da koy nangu kooku amul wax kon bayre am nañ ci bayre alquran am nañ sax bayre garab am nañ sa bayre fas man dinaa sax fas waaw mu biin yi nekk ci yaasin mun naa ci génneel nit bayre boo xam ne dama koy fas ci fas laa koy def jonte am nañu contre fas boobu mais fas bi doo ko takk doo ko takk déedéet dama koy fas ba pare wax fi ñu koy def waaw koy fas wala ñu bind ko wala ñu taalal la sondeel ñu taal ñeenti sondeel waaw su ko defee ñu jàng yaasin am na fu muy tudd ñeenti rahmaan yi ci nekk su ñëwee ci rahmaan bi am na nu ñu koy jàngee sa lim suñ bëggee bàyyire daal mën nañ ko defal nit waaw loolu daal ku bëgg bàyyire wax dëgg yàlla am nañ ci ay façon yu bëri am nañ ci mu jarab nañ ci boo xam ne mun nañ la ko jaareel ci biddiw doo sangu doo takk doo suuru doo naan am na boo xam ne mun nañ la ko defal ci jaaro mais wóorut jaaro bi mun na réer ku nekk xam ne diggante yonent yàlla Suleymaan ak jaaram ba jaaro nag lu siiw la mun na dekk def lu nekk jaaro mun na def lu nekk mun nañ def ci jaaro loo xam ne sax boo nuyoo nit ki dalay topp mun na nekk ci jaaro mun nañ def ci jaaro tamit loo xamante ni boo ko fa defee sa njaboot yëpp kenn du la ci mooy mun nga def ci jaaro loo xamante ni boo ko ci defee ba pare ku la gis da lay ragal waaw waaye bayre tam mun nañ ko def ci jaaro waaye mun nañ ko def tam ci yaramu nit ki mun ko def tamit ci turu nit ki mun nañ ko defee alquran mun nañ ko defee leneen lu dul alquran mais man su ma doon tànn bu alquran bi lay tànn suratu yaasin mun na ko ay alquran yi mun nañ ko zuyina mun na ko rafanahu makanan aliyan mun na ko alam nasra mun na ko ay yu bëree bëree bëree bëree mun nañ bàyyi rek ci wàllum euh, feebar laay dugg du ma nee feebar damay jël euh, euh, ulcère dinañ ci ñaan dinañ ci ñaan dinañ ko faj inseer benn góom buy nekk ci xol la am lekk yu muy bañ am lekk yu muy bëgg pour mu wër nag dafa jafe mais mën na gëmm ba gëmmee ba gëmm ba commencé wér day des tuuti boo defaatee li mu bañ rek day jógaat góom bi ci xol bi lay nekk moo siti ñoo yem foofu loolu li koy waral mooy saan saan mooy ndeyu feebar yépp xale yi li ñuy lekkee suukar bi li ñuy lekkee yeneen lekk yi dañuy am saan boo leen respecté wul ci seen rey saan yooyu saan yi dañuy màgg ba tudd keeñaa am na saan bu mag bu tudd noonu saan yooyu nag dañuy dund ci biir nit ci li nit ki di lekk ci loolu la ñuy dund nekk ci biir bi di lekk des fois mu génnee leen des fois mu rëccale génnee benn des fois ñu dee mu génnee leen waaye bu génn jotee liy produire lekk bi ba mu war a génn dafa am lu ñu ciy tuddee bukki kuus bu mag bi saan du fa dugg saan yooyu nag dañuy sow sow yooyu ñuy sow mooy indi feebar yépp cosaanu feebar yépp fa lay bàyyeekoo sowu mooy indi cosaanu feebar yooyu yépp siti moo koy indi hémorroïde moo koy indi ulcère moo koy indi estomac moo koy indi ay feebar la yoo xam ne ñoo bokk ni ñuy bàyyeekoo benn kër la kii buddeegoo génn fii kii buddeegoo génn fii kii buddeegoo génn fii mais ñoom ñoo bokk fenn fu ñuy daje léegi nag suñu demee ba màgg du ñu bokk manifeste du ñu bokk du ñu bokk ni ñuy manifeste woo insert ci xol bi lay nekk bu xasee bu am foofu góom tux da koy def kaani da koy indi gens da koy indi lekk bu weex day indi insert di rey sa biir di xiif xiif yu metti yooyu di xiifal di xiifal ba xiif ba sa biir bi di jooy da koy def lekk ba mel ne séeréer da koy def waaye moo tax contrôle sa senegal ñaari biir dañ ko war a di jàngale ni ñuy lekkee ak ni ñuy seeyee boo ko waxee rek nag nit ñi bëgg rey seen bopp mais bëgg baax la rek dañu war a jàng ni ñuy lekkee xoolal koo xam ne bu yeewoo day lekk mburu ak li mburu mi di àndal bu am jotee day lekk ceeb ak li ceeb bi di àndal njogonal mu ne tuy reer mu ne tuy toog ba guddi mu ne su xiifut lekkantu mais loolu mënul ànd ak sante mbokk yi mënul ànd ak wér c'est pas possible kon ni ñuy lekkee dañ ko war a jàngale lekkal heure sàngam boo lekkee lekkel nii booy lekk naanal lii balaa ngaa lekkaat lekkaatal beneen heure te du lekk boo gis nga def ko sa biir mais tey kenn mënul jàngal nit ñi ni ñuy lekkee te te mag ñi dañ doon jàngale donte te tegginu lekk ni ñuy lekkee dinañ ko doon jàngale mais yonent salaa sallam moo ne nahnu qawmun la naakulu hatta najuu wa taamu wa taamu waahid ah, mu ne ñun nit la ñu ñoo xamante ni du ñu lekk mukk lu dul dañoo xiif te du ñu suur mukk tamit bu suñu xel dalee ñu bàyyi te li li li ñaar li li li li kenn di lekk ñaar ci ñun la maanaam li ñuy lekk maanaam lu ñaari euh, ñaari nit euh, euh, maanaam moom lekkam daf la bëgg wax ne rek bariwut tuuti lay lekk boo xaajee lu lu nit war a lekk benn mocc bi moom mooy lekkam boo xaajee lu nit war lekk suur mocc bi lay lekk kon daf la bëgg wax ne du lekk ba suur te du lekk lu dul dafa xiif loolu daf bokk ci sante waaye sol sa biir sol sa biir sol sa biir ba pare naan yàlla nga koy bàyyee loolu loolu day bokk ci luy indi inseer mu nekk benn góom buy nekk ci biir xol dafa am foofu xol am foofu foie ñoom ñaar dañu ute xol bi mooy liy xaw a jaune foie bi mooy res bi kabid foofu la yàlla sosee programme mu nit programme mu deret bi circulé ci nit fa yàlla sosee mooy foie bi moo tax mu ne la qad xalaqna al insana fi kabad kabid kabad kooku mooy moy foie bi am nag am nag xol bi muy tiim foie bi di ko féeti kaw boo reyee xar koy gis xol bi mooy loolu di mel ni di kosong kosongi bu xawee génn di mel ni perméable foie bi loolu mooy loolu lu mel ne yàpp bu woy fois bi mooy am wextaan bi waaw li deret bi di sàcc ci naaj bi di ko produire muy tàng loolu mooy waral wextaan bi te wextaan boobu mooy tokk moo waral lekk bi di rees kon pour wax delluwaat ci INSER bi mooy yooyu yëpp day indi INSER mu nekk nag benn góom buy nekk ci xol boo xiifee dëgg muy metti boo suuree dëgg muy metti ci xol bi lay nekk bëggul lu tàng bëggul lu weex am na lekk yu bëggul lekk yu bari du ma tudd benn lekk nag pour mel ne damay yàq yenn lekk yi mais bëgg na meew bëgg na meew lool surtout meew bu sedd nga bañ ci naan lu bari tamit meew bu sedd nga bañ ci naan lu bari boo toppee noonu boo lekkee tuuti rek arrêté naan meew bu sedd tuuti boo ko defee du mot weer sa inseer gëmmu bu gëmmee nag nga bàyyi li li ngay lekk muy mu koy mu koy yee boo ko defee balaa moo mot at góom bi wér mais ci biir at bi tànk motu ko ngay lekkaat yu weex yooyu góom bi day yeewaat kooku mooy inseer dinañ ko faj dañ ko faj am na benn saafara bu ñuy defar boole kook benn xobu lingom sax lañ koy waxuma xobu lingom de deru lingom doomu lingom bi der bi ci kaw moom lañ koy booleel te pourtant lingom dar boobu dafa weex mais buñ ko defee ci ndox du weex parce que boo ko tàngalee boo jëlee ndox tàngal ko ba mu tàng jël limon bi def ci biir doomu doomu lingoom bi def ci biir boo bu demee ba mu sedd boo génnee doom bi ndox mi dootul weex kooku day bokk na ci li gën a boole ko ak lem ak meew ñaar yooyu ñaar yu baax la lem ak meew su ko defee day faj ulcère bi am nañ ci dañ dañ ko fajee ci loolu ak yeneen ak yeneen waaw. loolu moom. góor ñu bari xam nañ li may wax maam yi dañ doon am ñeenti jabar te kenn du mer waaw léegi góor gu fi am ñeenti jabar bis bu ne mu takk tàkk tàggu day voyage yi bis bu ne mu tàggu ne day tukki parce que mën a tut am na lu ko waral nag wax naa leen ci lu weesul fii am na benn kuuyu jinne naa tudd turam sax bu génn fi ne ma génn nañu dugg dëkk bi góor ñu bari dinañ leen neewal kattan dëgg la nag rab yi rab day neewal góor kattan foye sa bopp di séye sa awra nekk xale day neewal góor kattan day neewal góor kattan am na certain lekk yi tamit dañuy neewal góor kattan foog naa ko delluwaat ci réseaux sociaux yi di nga gisaat lekk yu mel noonu bëgguma tudd benn lekk man pour yàqal kenn mais am na lekk yu yokk ngoo yu yokk doole nag loolu moom sañ naa ko tudd lu mel ne ñambi lu mel ni koko lu mel ni gerte lu mel ni siddéem lu mel ni cere lu mel ne laax lekk yooyu moom kooku moom day day day day day day yokk ngóore te nag jigéen yi moytu yu bëri yi ñuy utiliser te jële ko ci tubaab yi bëgg benn guddi bu neex bu mu la yàqal yeneen guddi yi xaw ma ndax xam ngeen li ma bëgg wax jël benn produit rek ne dangaa bëgg tey moom combat bu kenn musul gis nga def ko tey am combat bu mosul gis boo bu kenn musul gis mais est-ce que suba di nga amaat combat bi wala boo ko amaatee ndax weer doo doo ki ngay jox combat bi du jeexal yooyu dafiy am dafiy am yooyu ñu invité ko bàyyi ni ko yàlla defee rek moo gën loolu amee rek di ko kii mais ngóore dinañ ci jox am nañ ci ay gàllaaj nag am nañ ci ay yooyu moom foog naa ba wàccoon ci mbedd mi am na ñoo xam ne xam nañ ko am nañ ci ay gàll ay sunguf yoo xam ne Euh, yu baax la ci nañ ci toggal nit laax des fois dañ ko defal nit des fois ci yàpp xar nañ ci jot nit des fois lu mu naan waaw euh, dinañ ci jox nit des fois ay tettal daal yoo xam ne bu ko defee day dem ba essayé ñëw wax ñu lii laa gis kon góore am na rab da koy def foye sa bopp ci sa awra sa loxo da koy def euh, yenn lekk yi da koy def loolu day néewal góor kattan góor yu bari ñu invité loolu bu baax macha allah Cheikh Arouna am na solo maanaam dañ lay kii nga a joué ni ko suba soo amee a génne. waaw équipe Sénégal maa ngi maa ngi maa ngi leen di ñaanal yàlla dëgg yàlla képp kuy sénégalais yaa ngi leen di ñaanal képp kuy sénégalais yaa ngi ñaanal équipe nationale bu Sénégal maa ngi nekkoon ci àll bi fan yii rek ngeen fi mujjee xaw ma yéen la xaw ma ne maa ngi doon war a dem ci àll bi ay jinne yu jàppoon war leen yóbbu foofu ak soxlawaale woon foofu leneen euh, biñ demee ba foofu soxna si ma ngi naan ma ñaanalal équipe nationale ma ne ko waaw naa ko ñaanal kon équipe bi ñëpp képp kuy sénégalais war leen ñaanal waaye nañ bàyyi xel li ma waxoon rek bu ñu leen di gagné daal du ñu xam lu xew loolu nañ ko gestuwaat ñaari nit nag woo nañ ma si ma ne leen dama tukki ñu ne ma su ñëwee naa leen woo léegi laa ñëw woowaguma leen. xëy na dinañ ma woobaat suñ ma woo ah. mën nga ne leen ñëw nga sax. waaw kon ñëw naa ñaari kilifa daal woo nañ ma si mm-hmm. waaw ma ne leen damaa tukki maa ngi Kédougou ñu ne ma boo ñëwee soxla nañ la mm-hmm. man leen waaw d'accord ñu ne ma ma ne leen jeudi daal dinaa ñëw incha allah mm-hmm. te ñëw naa jeudi bi waaw ñu ne ma woon ko boo ñëwee nang ñu nang ñu woo naa après ma xool numéro bi su ma leen mënee woo jot leen naa leen ko su ma leen kiiwul tamit ñëw naa maa ngi fi kon. loolu war nañu fexe xam lan la am na ñu ko xam wax naa ko waxati ko pour équipe bi mun a gagné équipe bu mun a gagné la équipe bu mun a gagné la te marché bii ñuy am ni mun nañ ko gagné mun nañ ko gagné de man am naa yaakaar cent pour cent dañ koy gagné waaye nag après liy xew buy xew doo comprendre parce que am na lu nekk ci biir naa ngi leen ñaanal yàlla nag yàlla na leen yàlla may ndam yàlla na leen yàlla may ndam waaw waaye daal ñu gëstu suñu insister ci ni ñu ni ñoo ñu woote noonu loolu bu ñu ci insister rek senegal dina am na ko lu leer la mais bu ñu bàyyee noonu rek naa nii nii nii du baax wax ju leer la de di baalu xaq ñépp di baal xaq ñëpp di jéggalu ci kàddu yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne wallahi bëgguñu si dara lu dul jàmmi nit ñi ak ak seen yiw ak seen mucc ak seen ak jàmmi réew mi ak mucc réew mi donte des fois nga dégg yi waaye àddina noonu la bugguñu si lenn ndax nu waaw ñun ñun ana mudarris mudarris kaamil bi kulli fan la axtaaju bi ah, xiyaali dunia la la la la waaw ko defee di jagal ñëpp wa urid illa islah ma stataat wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salatu wa salam ala maulana rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di leen sant di leen gërëm di sant soxna si di ko gërëm di sant ñëpp rek di gërëm ñëpp di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu